waliidul jubaa'i mi mi nga xam ne moo yore yaayam abarul hasan al ashari di def léeg-léeg mu posé ko question rek mu tontu waaye li mu koy tontu du ko doy ba benn bis daal mu ramassé ko ci question yoo xam ne jaxase na jaxase na cereem ñoo ne ko waaw bàyyi mu ne mu ne ko kaay ñu waxtaan dama lay posé benn question ñetti nit a ngi nii bokk ndey ak bàyyi kii dund na dund gu gudd toppee ko yàlla kii dund dund gu gudd mooy ko yàlla seen rakk ji judd moom ba mu daataan xàmmee dara faatu mu ne bis fen ci jot na yàlla lu muy def ñett ñooñu mu ne ko ki jaar wetu ndey joor kooku ca dara jaat ya état si àjjana yi gën a kawe la jëm kii dundam gépp mu moye ko yàlla kooku ca dara kaat bi ca kàmbi sa a gën a xóot lay dem seen rakk ji judd rek daal di faatu ci yërmande yàlla la jëm mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko waaw yéen de ngeen ñuy jàngale yéen di ngeen ñuy wax ne lu yàlla dogal ci jaam bi loolaa gën ci jaam bi mu ne ko waaw loolu mooy suñu pas-pas mu ne ko bàyyi kon nañ dellu siwaat ci li ma tontu mu ne waaw xale bii nga xam ne moom deful dara bu duggee àjjana fu muy nekk mu ne ko ci àjjana yu suufe yi waaye du àgg ca darajee nekkee dund juróom-ñaar fukki at jaamoo ko yàlla mu ne ko waaw mu ne ko noonu rek lay demee mu ne ko waaw bu xale bi ne waaw yow yàlla sama mag jee ñu ma bokkal ndey bàyyi fa yóbbu ci kawe këri àjjana wi kaw lu tere nga yóbbu mu ne suñ borom daf ko naan déet bul wax dara yow soo màggoon da ngay mooy yàlla te nga dugg sawara te bëgguma nga bëgguma nga dugg sawara jàppal ci li am mu ne ko aha mu ne waaw mu ne ko waaw xale bi magam jee nekk biir sawara nag bu ne aha yàlla ay yow nga xam ne bu ma màggee dama laa nar a mooy dugg sawara foofu sama rakk ji tollu tere war nga rayoon ma fi mu ne ko lu yàlla tontu jàmm bàyyam bi gag munu koo tontu mu daal di yéeg ca minbaru jàkk ji ba tiim ba tiim nit ñi téere yam yoroon yépp ci itisaal mu ne ko nit ñi xër sànni ne yéen mbooloo mi nii ma sànnee xëri téere yi sànnee naa ko itisaal dem naa ci ahlu sunnati benn boobu rek boo ko jàppee nga xam ne kooku doy na mu nekk beesalkat ci jamonoom waaye nag am ñu ne limaam ahmad ibnu hanbal ñu ko indi barab boobu moom it daj na lu ko jar waaye abul hasan daal ibnu surey ji tudd nañ ko waaye liñ gën a dëppoo mooy abul hasan al ashari fi aqdi al ashari wa fiqhi maliki wa fi tariqati junaydi saliki gis ngeen ibnu ashir ba sax te noonu ibnu ashir tërale sëñ Tuubaa it noonu la tërale léegi juróom maanaam ñeenteelu siècle ñu ne Abu Bakar al Baqilaani ñu ne Ibnu Surayj ñi wax al Israili ñi wax Sawlu Suxlooki ñoom ñeent ñëpp tudd nañ leen waaye téeméeru juróomeel bi moom ñaar werante wuñ ci hujjatul islaam Abu Hamid al Ghazali moom la Sëñ Tuubaa naan waxay suma zakartu xaala bi damir fa raajiyun ila al Ghazali shahir waxay suma zakartu lafza qultu fa min maani qawlihim naqaltu way sama sakkatu xaala ba demir faraaju ilal xasali shahir wa xayruhu min haayulaay luxuri ustariwul isma lahu bi zikri fa kaana inda al miati l ula omar xalifatal adli bi ijmain waqar wa shafii kaana inda sani lima lahu min al ulumi saari noonu la ko abdourahmani suyuti indi ci téere bu mu tudde tuxfatul muhtadin fi axbaaril mujaddidin wabnu surayjin saalisul aima wala shariyu addahu man amma wal baaqilaani raabiun aw sahlun aw alistrain yaxulfun xat xakaw wal xaamisul xabru huwa al gazali wa adduhu maa fii min jidaali waaye nag boobu am na ay conditions am na mandarga yu ñu koy xamee bi ci njëkk mooy ban <coughs> siècle bi muy waare waaj beesal bi muy agsi fekk na ko ci kaw suuf bi siècle bi di dugg fekk na ko mu ne ci kaw suuf jàppalagoon tomb boobu indi ko ci suñ beesal kër bi suñ tubaa ci fanweeri atam net net net ci la Maam Mor Anta Sali génn jamono ci fanweeri atam net net bi muy am fanweeri atam net la siècle bee jeex mu dugg sekkal bi mu war a beesal si jàppal boo tomb boobu ak ni ko Abdourahmane Suyuti yi benn bu nekk ni mu dalee ci jëm Cheikh Ahmadou Bamba ji yu yushaaru bil ilmi ila yi day am xam-xam boo xam ne ñëpp dañ koy joxeñ baaraam jàngale ak nubsatul mubaarak bu Cheikh Ndour Diop Dagana moo mujj irwaawu nadim bi nga xool ni àdduna bépp doon joobee sëriñ Momar Anta Sali am na doom joo xam ne kawe na bindeef ci wet gépp wet yépp ci xam-xam wayan suru sunnati fii kalaami yi loolu lépp dañu ci gën a ñëw day dimbali sunna ci ay kàddoom nga jël Cheikh Ahmadou Bamba bi ñëwee def ne ujaddidu sunnata hiina kaada tumiituhaa dujan hawat an kaada damaa fekk sunna ay lëndëm yu xat ñett ko bu koo écrasé ma ñëw ngir beesal si wa an yakuuna jaamian li kulli fan wa an ya'umma ilmuhu zaman Cheikh Ahmadou daawul delloo genn fànn xam-xam téere boo indi mu jàngal la xam-xamam day matale waa jamono. wa an yakuna fi hadisin qadra bi min ahli bayti Moustapha wa qad qawi soo ko toppee toujours rek jooju it ak càllalaam day dellu ci yonent bi sallallahu alayhi yéen ñëpp gis ngeen ko Cheikh Loon Diop daga na waxe Sëñ Tuubaa ci wàlluk ak wàlluk baayam lépp dafa bo dafa dañoo ay shérif lañ wa kawnuhu fardan huwa al-mashhur qad nataqal hadis wal am na ñu ne beesalkat bi dana doon ñaar ñaar ñett waaye li gën a siiw mooy kenn lay doon ay xam naa ne ñun suñ jamono jiinu nu toll moom bu beesal kët doon ñëw beesal bi laaj na xanaa mu nekk eh, juróom ba juróom benn ba jëm fukk sax na ndax ni àdduna bi bindoo léegi wa kawnuhu fardan huwa al-mashhur qad nataqa al-hadis wal jumhur <laughs> bi agsee ci téeméeru juróom-ñeenteel nag Abdourahmane Suyuti moom ci boppam jàppoon na ne moo war a nekk mu jëddit bi waaye bi mu xoolaatee boppam gis na ne condition yi manqué na mun na waxat rajowta an na nil mu jaddidu fiiha fa fadlullahi laysa yujhadu léegi borom xam-xam yooyu lim nañoo lima lima lim na ko waxe woon rek euh, dañ koy tënk de seen ndax seen thème bi moom xam nga thème buñ ko koy wax toujours tamit di wax di waxaale emploi de temps ba temps bañ fay am nu muy toll day waral nga mën caa régler thème ba mo li ñu bindoon moom dangeen gis ne euh, dañ dañ koy dañuy taxañ lu bari ndax xam nañ ne ni ngeen waxee kii bi moom li fay xaj du moom li fay xaj lu bari bu agsee ci imaamul Xasaali moom moom wala nga xa ak beesalam ñépp ci dëppoo Xasaali mbiram di lu doy waar baayam dafa bëggoon xam-xam lool te amul xam-xam bu demee fortaatu yu lu mu am bu ca génnee dépassam day ñëw ci kan ci kanam boroom xam-xam mbiri di déglu di jooy rek di jël alalam di ko jox ba ko faatu di dikkal ñaari doom la am muhammadul ghazali ak ahmadul ghazali ñaar lañ mu ne imaamul ghazali bii dafa gën a siiw rek de waaye frère am boobu li mu yor ci xam-xam am lu nekk góor yàlla waaye ghazali da koo muur rek bàyyam jàpp ci seen ndox ba dem ca boroom xam-xam ba ne ko damaa bëgg ñu am xam te uma te xam naa ne maa ngi faatu daal di jël lam am ci àllal jox ko ne dee leen ci dundal di leen ci toppatoo waaye damaa bëgguñu am xam-xam rek ah kooku it di ko néew doole naka la leen yor di leen dundal di leen jàngal ab diir mënatu leen yor <laughs> ah mu daldi di leen di yóbbu yóbbu ci lu mel ne mën nga koo tudde daal école buur nga xam ne da ngay lekk ka naan te doo fay moo tax imaamul Xasaali daan faral di wax ne talab naal elma li xayrillaahi fa abal elmu an yakkoon lillahi lii ne na ba ñuy dem ca daara jooja fu ñuy lekkee ka naanu ñu fa yóbbu woon yàlla moom moo moo bañ rek ne faaw ma am xam-xam waaye gis nga fi mu jaar noonu mu ganee àdduna ca tuus nga de noonu mu demee ci imaamul xaramayni mu dajalee ay xam-xamam gis ngeen la ko gaar ba mu demee dajale taaliixaam ya def genn kàggoom gàddu ko bëgg bu ñëwee nag tàmbalee tare jàng muy mokk te addu kalpe ya gas kar ko ca ca àll ba nangu gafaka ga foog ne alal la ci ne mu topp leen dimbali leen ma ngir yàlla sama gafaka gi xaalis nekku ci alal newu ci xam-xam yi ma jàng woon ci nekk kilifa addu kalpe yi jékki-jékki ni ko xërr sànni ko ni ko jëmal fale yow amoo xam-xam xam-xam boo xam ne buñ ko nangoo nga topp ci ñuy yelwaan xam-xam ci dënd lay nekk gasalina la illa daal ne bandi bi yàlla ko yebal ci man lim ma wax de dëgg la aw ma xam-xam xam-xam al fi sudur laa fi sutur xam-xam ci dënd lay ni naka la xasaali ñëw tëju di jàng guddeeg bëccëg ba yëg ne la nekkoon ci kàggu gi yëpp bokk bokkal na mu ne waaw kay maa ngi soog a am xam-xam imaamu Shaafi dafa imaamu Shaafi la sax moo ko wax de elmi may xaysu maa yamamtu yan fa uni xal bi wi a un lawoo laabat na sunduuxi in kuntu fil bayti kaanal elmu fii ma'i aw kuntu fii suuxi kaanal elmu fii suuxi yi nee na sama xam-xam ngi ànd ak man fu ma jublu rek mu jariñ ma sama xol bii mooy mooy waxandewu xam-xam bi waaye kàggu ga du waxandewu xam-xam bi su ma nekkee ci kër gi xam-xam bi ànd ak man su ma nekkee ca marché ba xam-xam ànd ak man waaye su ngeen gisee xam-xam léegi jafe xam-xam daanaka sëñ bi amatul ndegam sëñ bi ñun ci fortaatu la nekk boo ñu posé question dañ naan may ma fekk su fekk suba dem ubbi kàggu ga téere bu ne nga jàllañ ko soo ko mën a tontu masala bi sëñ bi suñu gaa yi meluñ woon noonu de suñu gaa yi meluñ woon noonu xanaa xool nga si Ahmadou Bamba ni sëñ Bassirou Mbacke nett leen nee na sëñ Touba nee na leen bi mu nekk ci daaree sëriñ Momar Anta Sali di jàng kenn dong moo fa nekkoon ku yore wujjeeg moom ci xam-xam ku ñuy wax Balla Maam Touré dëkk Lappe waaye sëñ Tuubaa nee na fi ma ko rawee dama ko gën a tar nu ma sàmmoo man lu ma xam bala ma koy romb jëfe ko mu ne ci sama biir yuq ak sama yaram sëñ Basiru teg ca ne nee na mooy yàlla dafa am poussière bu muy muur ci xolub kiy jàng ñaar dañoo bokk di jàng kii sell set ragal yàlla di moytu di aar cëram bëtam sax mu di ko sàmm ak i noppam kii moom mi ngi jàng waaye bu ne génne ci classe bi rek lu ko bakkanam laaj mu def ko lu ko bakkanam laaj rek toppatoo lu xaraam ak lu dagan na xool seen avenir rek ñoom ñaar waaye dafa ñëw ci wakki ne ko man daal lu dugg sama nopp bi rek jaar ca benn nopp mënumaa mokkal dara mu ne ko xanaa da ngay mooy yàlla waa ji ne tekk mu ne ko bàyyil mooy yàlla xam-xam leer la te yàlla du jël leeram di ko joxum mooy kat kon nag imaamul Xasaali nga gis ko moom ba mu demee ca madrasu madrasatu nizaamiya Xasaali su ko suñ borom dara dimbalee dafa am dut Xasaali day jàngale di jàngale ci matu ni sàmm waxuñu la moom muy jàngal ay ay élèves nii rek de ak i étudiant waaye gis nga Xasaali professeurs yi la doon jàngal prof yi ñu koy wër borom kaala yi ñu koy wër borom kaala yi ñay war a jàngale ñay jàngale ñu war la yi daan jàngal xam nga ne xam-xamam doyoon nag waar Xasaali jekki am benn dut waaw lii may jàngale lu ma won ne dëgg la ndax man xale juif bi dafa juddu fekk ndey bàyyam topp judaïsme mu nekk juif xale bi topp christianisme dafa juddu fekk ndeyam ak bàyyam nekk ay chrétien mu nekk chrétien xale bi jullit bi daa fekk ndeyam mooy baay bi jullit rek mu nekk jullit mbaa du man lii moom a tëye ci lislaam ma nit lan moo ma wan ne diine ji ma nekkoon dëgg la Ghazali bu ko dut boobu dikkalee mu bëmax di bëmax di mujj loolu imposé ko bu wàcc ci xolam ba nit ñi dañ koy wër mu ne xàjj di leen xool du mën a wax ndax mbir mi diis ci xolam bi ñu nee docteur bu bu ko xool ne xaw ma lu ko dal de waaye ko dala ngi ci xol bi xam nga booba lu mu doon waaye nee na xaw ma lu ko jàpp ci xol bi la nekk loolu dem ci moom. mu ne léegi fan laa war a njëkk a seet ci hissiyaat yi yi ngay làmb daj ak yi ngay xool ban moo ci njëkk li sama bët di gis bët ñun lañ gën a doyloo lu mu la woon nga ne nangam am na cest di analyser ba gis ne bët lim la jox mën naa bañ a doon dëgg cest ndax ndax keppaaru garab gi suba jot kepp keppaar gi dëll lool keppaar gi boo ko xoolee moom daf laa wax ci lisaanoo xaal ne la ne la bougé wum xam nga da xool ker gi moom dafa ne dégg rek mais par ay atome atome ndeke mi ngi déplacé xasaali ne nga dem quelque temps dellu siwaat mu ne xisiyaat yi darooraat yi lam la waxoon si faux ker gi daf na la woon bougé wu ma waaye nee na bougé na xasaali ne damay xool ci kaw asamaan planète bi xam nga planète yi kon jant bi jant bi xam ngeen ne ëpp na suuf si mille fois am na beneen planète bu ñu wax ar Arctrie Arctrie kooku ëpp na suuf si lu mat million fois daaw bi ma mujjee topp di gëstu lu mel noonu planète bi mujjoon na gis ñu découvrir ëpp découvrir découvrir ko moom ci boppam ëpp na Arctrie boobu nangami million yoon Ghazali ne da ngay xool planète bi gis ko mu tuuti lool tolloog ak koppar te am na ci boo xam ne moo ëpp suuf sii ma ne koo waxuma la suuf si waaye jant bi ëpp na suuf yi mille fois mu attraction jant bi it mu gën a fort attraction suuf si six fois wala huit fois wala niñ ko dama dama gëj gëj damaa xool kii wala lu ni bindoo léegi kon xasaali ne bët la wax mën naa bañ doon dëgg ba ca jot kaw bu tàngee bu jant bi tàngee yéen bu ngeen taxawee ci kaw tali bi nooy def da ngay séen fële foog nga am ndox fa taa ci kaw tali bi est que boo demee da nga ko fekk ndox. kon bët na laa mën na laa wax lu dul dëgg xasaali ne kon ana dëgg ne kon bàyyi na xisiyaat yi ak daruriyaat yi dem ci aqliyaat yi mu ne waaw aqliyaat yi ndax mooy dëgg xam nga fukk ëpp ñett xam nga loolu moom la xel nangu xam nga loolu mooy dëgg waaye est-ce que noonu la xel wane ne fukk moo ëpp ñett est-ce que foo tourné rek noonu lay bindoo Xasaali ne naa def beneen jéego beneen jéego bu mooy ban mu ne waaw man bu ma tëddee di nelaw mën na maa nekk ci ay bien yu ëpp yii may dund di gis loo xam ne bu ma yeewoo yeewu daal ay fen loo monde bee ma nekkoon ak la ma fa doon gis Xasaali ne waaw kon lay xew gannaaw bu dee amee mbaadu kon ni yeewu fen loo gént lay xew gannaaw bu ñu dee noonu lay fen lool monde bii li fi nekkoon te loolu mooy lu mooy dëgg annaasu niyaamun fa isaa maatoon tabaxoo nit ñi dañuy nelaw ku ci dee yeewu xam nga ñun dañ naan diw sàngam ba mu nelawee ak léegi contraire bi moom ñun ñii ñooy nelaw ña faatu ñoo yeewu ñoom ñoo gis la xew alxuraan nee na wa badaa lahum min allaahi maa lam yakuunu yaxtasiboon am na gaa yoo xam ne bu ñu faatoo danañ fekk ci yàlla mbir dana leen feeñu mu jóge ci yàlla mu bokkut ak nañ ko fooge woon sëñ bi xam nga nag euh, li ëpp ci ñun dañuy nax suñu bopp mag muy nax boppam moo bari ci ñun xam nga kenn ku sikk sàkk ci ñun ne suñu maam aadama ak Hawa benn garab guñ leen tere ñu lekk ca benn doom ci nañ leen sanctionné tëj leen ci kaso fii yow nga nekk sëtub kooku benn tooñaange la sa maam defoon yow nga def junniy tooñaange te foo toll di dolli ba noppi rafet njort da ngay waaxu rek duggaat foofu sëñ bi mag du nax boppam dafa am yoo ne sëñ bi ku la ko bëgg a gëmloo moom mi mooy sam noon bis boo ci àggee da ngay yuux rek naan ko yàlla na nga dee waaye dootul jëriñati dara gis ngeen ni ko alxuraan misaal defal li leen neex toppal sa bakkan sëñ bi boo faatoo rek baax na ma ne la xaatoo burhaanakum indil ma preuve ubbil ma foofa wat ma ma gis la ma fay xaar ubbil ma ko may jàkkaarloo moom gis nga kii xasaali ne kon noonu yi nga xam ne diggante gént gi yow ba tey noonu la ñuy weddente mu ne sufiyanke it mbaa du kon lay xew dëgg-dëgg bu ñu reyee seen bakkan xuus ci seen bakkan lay xew dëgg-dëgg li leen yàlla di wan ñu di ko wan mbindeef di ko wax mbindeef te xajul ci seen bopp xam nga soo demee ci la taayif mi ne ni ni Cheikh Abdou Wahab Sahrawi nettali Cheikh Abdou Khadir Jilani nee na yàlla fasante naa ak man ñeent fukki kóllëre nee na ma du ma la mëkkaru mukk du ma la fexeel waaye nee na keroog laa gën a wóolu di ko pexum yàlla ñu ne ko lu tax mu ne yàlla mën na leen mën na leen du ma def nanga ma noppi def ko te taxul wax yàlla toxu xam nga lu waral lool yàlla moo tudd rahman moo tudd rahim waaye moo tudd muntaqim moo tudd jàbbaar rahman mën na laa mën na laa wax ne may naa la nga dund téeméeraat bala nga fee jóg muntaqim fàdd la nga faatu nga lu ko waral yàlla mooy rahman waaye mooy muntaqim xam nga suñ borom daa wuuteeg ñun yow yaa ngi nii fii nga nekk ku la doon wër feneen du la fa fekk yàlla moom benn barab espace occupé occupé wu ko te ay mel nit ku nekk kem kem sa kem sa daraja suñ borom ci ay melokaanam la lay feeñoo jëflanteeg yow ci melokaan woowu waxuma la yàlla waaye wàll yi sax day dem ba mën a xar téeméeri jëm barab bu nekk mu nekk fa def def dara xam nga loolu xajul ci xelum kese Ghazali kon. étape yooyu la jaar gis nga ba ni mu gàddaaye dem Syrie sax fa ci jàkk ja dem Quds ci saxratu Yaquub fi sallallahu alayhi wa sallam ànde woon buraax ñu bëtt asamaan si dem aji màkk dellusiwaat def fa juróom-ñeenti ci biir juróom-ñeenti at nee na la yàlla sànni leer ci sama xol gu ma woon dëgg gi moo tax Cheikh Muhiddin Ibnul Arabi ak Imaamul Xasaali boo doon di seet ñoom ñaar dañuy wuute. ñaari wàllu yi dañuy sóobu ku nekk àgg seeni wax wuute ne asamaan ak suuf Cheikh Muhyiddin Ibnul Arabi daf ne mënee sut a xam yàlla te jaaroo ci mbindeef yi maanaam daf mënee sut a xam yàlla te jaaroo ci mbindeef yi Ghazali ne ko mënees naa xam yàlla te doo jaar ci mbindeef yi ku nekk sa expérience nga wax kee ci mbindeef yi la jaar ba xam yàlla tafakkaroo fii xalqillaahi wala tafakkaroo fii zaatihi mu ne Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi appliqué Imaamul Ghazali moom yàllaa ko xamal boppam te jaarul ci bindee fi moo tax bi nuurin xasafahu Allahu fi qalbihi moo tax fi mu ko bi ñu ko pour mu justifier li mu wax daf ne alxuraan bi ne fa man yuridillahu an yahdihi yashrah sadrahu lil islaam ku yàlla nammal ci yow am njub dafay xar sa dënn dafay leeral sa dënn ci lislaam ñu laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bi nuuril yaqsifuhu laahu fil qalbi ci leer yàlla di sànni cib xol la loolu di amee imaamul Xasaali neen loolee ca yàlla cërale leer gu ñu sànni ci sama xol boo ko dee topp kon baree bari lañ waroon a wax ci imaamul Xasaali Xasaali bokk na ci lii wane ak beesalam ba tey jamonoom dafa fekk nit ñi wacc nañ alxuraan wàcc sunna <laughs> philosophe yi rek Hmm? Aristote nee na Socrate nee na Bocrate nee na Galinus nee na rek koo wax ne ko yàlla ak yonent bi nee na mu ne la yow affaire yu fanatisme nga may wax man lu concret lii kii ma indil mathématique indil ma nangam nangam xam nga li ñu indil ñi muy lu konkre ñu gëm nag ne ñoom xam nañ lu nekk. ba daan imaamul Xasaali ñoo jàng philosophie bokk taalif maqaasidul fa soo ko taalif tëhëfatul falaasifa wane fi ñu daanoo nga gis ñaar fukki point imaamul Xasaali indi ko ci téere boobu waaye ma nett la ci benn point bi leen Xasaali yi waxee ne yéefar ngeen te lu naqaree dégg la woon ndax ñi Xasaali tàbbal ci kéefar ay ponkan lañ yoo xam ne njiiti lislaam yu mag lañu leen def ibnu Sina yi ak ñeneen ak ñeneen xam ma indi la tomb boobu xam nga ñoom dafa bokk ci li ñu wax ñu ne yow yàlla ñu ne yàlla turam yi ak meloom yi dañoo taqal dañoo taqalu mënuñoo taqali ko ñu ne leen fu ngeen maanaam turam yi ak meloom yi ak jëmmam ja lañ wax tur yi ak melo yi ak jëmm ja dañoo taqali ko dara jiituwu ci morom ñu ne leen indil ñu exemple ñu ne jant bi ak ceeñeer yi jóge ci jant bi jant bi jiitoowul ceeñeer yi lu dul jóge gi ceeñeer yi jóge ci moom waaye ba jant amee la ceeñeer am kon nag ñu ne ba yàlla amee ca la mbindeef am yàlla mënut mënut a tudd tudd xaaliq te alxalqa amul mënut a tudd aji bind te mbindeef amul xool nga seen philosophie boobu kastaa leen leen daanu ngeen ba ko ñu ne ko fu ñu daanoo mu ne jant bi mbindeef la te yàlla mooy aji bind ji lu tax ngeen jël ki ñu bind di ko xiyaas ci aji bind ji hmm? xam nga mi ngi mel ni problème mu jant bi rek jant bi dafa yor énergie boo xam ne yàgg-yàgg dana fay wala du fay dana jeex wala du jeex gis nga ay philosophe yu ne jant bi énergie bi mu yor du jeex fu ngeen ko teg ñu ne xam-xamu grec yi jël nañ seen benn appareil boo xam ne nangami junni at topp na ko jant bi ba gis ne yor na énergie boo xam ne bii du jeex waaye delluwaatal ci misaal bi xasaal yi toujours fi mu leen di daaneel xasaal yi xel mi moo rëy gis nga misaal mi mu la joxoon ci keppaaru garab gi muy garab yi seen appareil boobu bañ ko créé bañ ko créé ak fi ñu indee seen résultat yooyu lim leen wan sëriñ bi mu jant bi di wàññi ko énergie di wàññi fekk tuuti na tuuti waaye boo xam ne bii diggante bi appareil bi am munu fee découvrir loolu ndax xam nga li mu wax ndax xam nga loolu Xasaali wax misaal yu sew yooyu la imaamul Xasaali dugge ba daaneel philosophe yépp nit ñi dellu siwaat ci alxuraan ak sunna mu doon beesal katub siècle boobu yépp dañ koy tënk rek dañ koy tënk léegi nag borom xam-xam bi lim na di lim beesalkat yi baat ci fukkeelu siècle ak ñeent xam nga lu mu wax foofu nee na ñu ngi ci fukkeelu siècle ak ñeent gisuñu kenn ku ñu dëppoo ci ak beesalam mu ne kon nag war nañoo yónnee ay lettre ci àdduna bi monde islamique bi ci borom xam-xam yi ñuy jëfe ba ndax danañ gis ku siiw koo xam ni que doy na beesalkat mbaa xam nga ne siècle bii boroom xam-xam bi di waxee lii siècle boobu moom la Cheikh Ahmadou Bamba wax ne moom moom la beesal si fukkeelu xarnu ak ñeent. fukkeelu xur xarnu ak ñett ci la gane àdduna 1270 ci ati gàddaay dund fanweeri at mu jeex Maam Mor Anta nelaw 30 ans yi mat ci biir fukki at yi nga xam ne moo mat war a mottali 40 ci la Sëñ Tuubaa u jàddidu shariatal mutahara insha wal haqiqatal munawwara damaa ñëw ngir beesal ci sharia ak haqiqa diinun siwaa islaamihi laa yuxmadu indal ilaahu bihi nu jaddidu diina judul lislaam duñ ko reconnaître ci yàlla di lislaam moom laa ñëw ngir beesal si ko sëñ bi nit day ñeme ci lim nekk dëgg des koy ñeme waaye sëñ bi nekk ci rajo beeg yëf yi di maslaa nga si ab jullit buy dem ci église ba léegi église ub Dakar bi di wër ab néew ñuy wax nga naan sama dëkk la woon te rafetal daa baax moo waral ma ñëw di tàggoo ngum tàggatoo bu mujj xanaa dugg nga dugg ci église ba xaraam na église ba xaraam na nga dugg ci lu dul cause boo xam ne bii daroora mul ji àll lu mel ni comme lee di xew New York nga xam ne bisu Korite ak Tabaski bis yu rëy yooyu amaguñ fa place bu rëy wala guddi yu rëy yi lu mel ne guddi Maam Jaara ak guddi Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne dañuy dem luye benn église waaye nag église yooyu dafa wuuteeg ñii ndax ñii seen yooyu ñii ci tabax lu mel ne jigéen ju wuufu bébbeeg yooyu yëpp ñoom amu fa ñoom dañ koy ra noonu rek te bu bu ñee buñ ko luyee dañuy wekk seen foto yooyu ñëw wekk fa seeni i bayiti xasaayit ak photo yi sëñ tubaak da ngay foog ne fii ak kër sëñ Tuubaa dee yu mel noonu lañ koy maye te bu dee ngirum Malik sax moom daf cee teengal lool waaye lu mel ne ngirub limaam Ahmad ibnu Hanbal ñoom da gis ñu wane tolérance bu yaatu foofu sa baay ak sa ndey bu ngeen bokkul diine li ñuy doon doon say wér bu ñu faatoo da leen di bàyyi sa seen waa diine ñu dem robi leen bu ñu amul kenn ku leen robi nag la la lislaam sant ne la jëlal dem gas suul leen waaye su boobaa mbaa xam nga ne lislaam du nangu nga dem suule leen ci armée la ñooñee soo leen fa suuf da ngay gëm ne ñooña lañ nekk diine la te lañ nekk du diine dul lislaam du diine laa la wax bi Muhammad sallallahu sëriñ bi lu dul lislaam ay caaxaan la ko waxal boppam inna diina indallahi al islaam lislaam dong mooy diina ci yàlla mooy li sëñ Tuubaa diini ilal jannati al islaamu wa huwa ala diinan siwaahu wasa nasun min allaahi u jaddidul shari'atal mutahara insha wal haqiqatul munawwara ujaddidu sunnata hiina kaada tumituha dujan aw awat an booba romb na ubi ubi jaddidi sabil ubi jaddidi sabil mooy ba mu koy ñaan yàlla lii nag mooy bi mu doonee lu concret ñu jox ko ko nag waaw ak beesalam Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari ne bada fi zamanin fii qad qusila al huda jihaaran wa man yaxzul huda laa yaxzuli nee na jamono yi Cheikh Ahmad Bamba di feeñ booba ñépp dañoo won ginnaaw njubum yàlla mi mere ko sànni ko ci àll ba fa xaama bi ismillaahi lil xaqi naasiran ilaa an badaa lil kulli doona taamuli nee na mu daal di taxaw tem dimbali diine ji yàlla diine yàlla ji ba mu set ne fang jóg ca kaw ba ñépp mën cee jariñu waaw bokk na ci beesalam waajtaayam niñ ko waajale li ma la wax ci ginnaaw waajal ko ci ay wayjur wayjur wu góor ak wu jigéen ak milieu ba mu feeñi ak i mbokk <laughs> mi ngi feeñi àdduna ci Mbàkke Bawol ci wetu raay ba 1270 dafa 1852 am ñu ne 1853 ci ak ndawam la daal di jeex takk ci bëgg yàlla ak yonentam takkoo jaamu boromam ak topp Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba ñuy sadd misaal ci moom di ko saxoo dëddu ak toraxlu ak taqasuf way juróom jigéen wow màndarga yi feeñ gis ngeen ni ko Cheikh Mouhamadoul Bachir waxe wa kaanat alwalidatu jaaratullahi maryamu saalihatan afifatan dayinatan kasirata salaati wa sawmi wa sadaqa mustaslimatan li rabbiha xaaimatan bi waajibaati diiniha fi ma baynaha wa bayna rabbiha wa fi ma baynaha wa bayna cheikh al imami xariniha wa kaana turabbi awlaadaha ala diini wal muraa wa tahaara sëñ Basiiru Mbàkke nee na way juru Cheikh Ahmad Bamba wu jigéen wow jaaratullaahi saalihatan nee na ak a yiwoon afifatan ak fegu woon dayinatan ak a amoon diine kasirata salaati wa sawmi ak a bëri woon julleeg koor xam nga bu ñu nee daa bëri julleeg koor waxuñ la julli yu juróom ak woor weeru koor ko wa sadaqa ak a woon i sarxe Cheikh Samba Diarra Mbaye wax na ca wala wax na ca taalifu xat tutimu naasa akalan tayiban wa kasa wa waxta juuin wal xaraaraati waxta sitaa waxta sayfi ayuhuma aqdan li arbaabi li haajaati arbaabi daruraati waxtu waxtu tàngoor ak waxtu sedd waxtu xiif ak waxtu mar moom mam jaara lam daan yittuwoo lu nit ñi lekk ak lu ñu naan ak lu ñu wadoore kasiratu salaati wa sami wa sadaq mustaslimatan li rabbiha mam jaara dafa bunnoon noskaam jox ko boroomu xaayimatan bi waajibaati diine ak ku taxawe woon waru gari diineem la fii maa bay naxa bay na rabbaat digganteem ak boromam bu ca wàññi dara wa fii maa bay naxa bay na seexi imaami xariniha jaamu yàlla ji du wàññi dara ci àq sëriñ Momar Anta Sali àq sëriñ Momar Anta Sali ji muy joxe du wàññi dara ci jaamu yàlla gi muy jaamu boromam wa kaana turabbi awlaadaha maam jaara daf daan yar ak njabootam ci diine ak mbañum rus mooy kersa ak laab maam jaara da daan toog Cheikh Ahmadou Bamba maam Mor jaara ak ñu nu bindoo wër ko mu naan leen min dë bi saalihi ne xiyaamul li bokk na ci aaje bokk na ci aaday gaañu baax ji taxaw guddi bokk na ci aaday gaañu baax ñi taxaw guddi soo demee ci ànnu sutul mu baaraka it Cheikh Ndour Diop Dagana nee na Mame Mor Anta Sali daan na ko wax waaye fi lay xam fi lay fi lay xamal waajtaal yàlla ni mu ni mu doy waar a Cheikh Amadou Bamba keroog bi mu déggee ne bokk na ci aada yi gaañu baax ñu taxaw guddi moom xamagul lu taxaw guddi di tekki moom foog ne ne rek mooy taxaw ak say tànk ba mu metti guddi keroog ba mu ko déggee guddi keroog nelawul day taxaw ba ay tànkam di metti mu waaxu dem fa ba tànkee metti mu tax xam boobu xamagul ne taxaw guddi nekk mooy muy jullee jàng alxuraan xoolal li yàlla rëddee aw yiw ci xolam bi lu mu dégg rek aw yiw da koy daal di jëse jëfe ci saasi wa kaana tey ki annahu ba'dal fitaam kaana yatajannabul ittijaa ala firaashi waalidatihi sëriñ Basiru nee na maam Jaara moo wax ne sëñ tubaab bi mu feree nangootu la tëdd ci lal lalu kenn bokk kenn lal wa yakunu maa lam yujbar alayhi te kenn forcé wu ko aakifan hawlal musalla day dem ba ci jullikaay beeg bu nit ñi nelaw mu toog ci jullikaayu sëriñ Mamadu Anta Sali bi ci guddi xatta daaqalawum sàkkun fi insaniyat yi bañ mujj di sàkka nit la wala nit ak leneen la te booba demagul daara jàngeegul alquran waxakat haadinat wa kaanat tàkki waxakat haadinatuhu wa kaanat tàkki waxakat haadinatu àndoon lam yëkkun yaxtari shay'un nu may yaxtari sibyaana lii gaara xale maam jaara nee na musta gaar Cheikh Ahmadou Bamba minal bukaay am lu ko naqaree wala xiif wala mar ba jooy ñu dégg ko nee na Sëriñ Tuubaa mës jooy wa daawul am lu ko neex ni xale di def di foo bay nit ñi Sëriñ Tuubaa kenn daaw ko dégg muy fo di kaf yaa xayra maaxi maxa junaahi maxal wal bukkaay wa talaxi walaw balaxal xadd minal jooy sëñ Basiru neen dafa àgg donte dafa àgg ci dayu xiif ba gën a metti kenn du ko xam ci moom walaw balaxal xadd minal jooy nee na waxtu woo ko bootee jaar ak moom ci mbedd moo xam ne ña ngi fay sabar wala ñuy mariage wala ñuy damye wala ñuy dawal loo xam ne du ndigalal yàlla du nangu nga jaar fa ak moom day def jenn baj baj pat pat ci sa ginnaaw nga tegg jaar weneen yoon mu ne dégg nga bëgg wutiwaat yéen moom muy bët bët ci sa ginnaaw du nangu mukk nga boot ko di romb nit ñoo xam ne lañ nekk du jaamu yàlla sëñ bi xoolal ku nekk di bootu di di tarbiya nit ñi sëñ bi kooku bu jógee fu mu jëm ak nit ñi wa anna ila rabbikal muntaha nga xam ne du bàyyi lu ndaw du bàyyi lu rëy lu dul mu jox ñu ci leçon moom sëñ Tuubaa ba ci topp way jur xam nga alxuraan bi ne wa amar an laa taabudoo illaa iyyaahu bil waalidayni ihsaan yàlla nee diggal naa leen bu leen jaamu ku dul yàlla waaye na ngeen rafetal jëm ci seeni way jur ci njaal benn nañu xool tuuti ci sëñ Tuubaa ci topp way jur moom moo topp way jur topp way jur ba àgg ci nañu barartu waalidaya biran xubila indal ilaa wasiwaaya kubila nee na topp naa ak topp naa wajur toppin woo xam ne yàlla sax nangu na ko nangu nañ ko ci yàlla nee na ku man yàlla jéng na la jéng bu la yàlla xoolee ci wet gu dana la jéng dana gis li nga manqué ci topp wajur nga xool bi mu ne bi muy bi muy bi di am kàttan xelam di mat dëgg fekk na maam jaara nelaw waaye xoolal ay xasidaam rek du ko bàyyi mukk wa najji nii wa jamii al muslimina ma an wa najji walidati amina yàlla yow yàlla ñaan naa la nga musal ma musalal mbooleem way jur yi waaye particulièrement musalal sama way wu jigéen fi barsaxin maa xabrin kun laha wasaran ca barsax ak ca bàmmeel rikk yow yàlla na nga doy sëkk maam jaara wéeruwaay ak ndimbal wa min kuróobin wa xaw fi najj na ko musal ci njàqare ak tiitaange laa tax tabiraha bi maa laysat bi xaadiratin yow ko teg mukk laa tax tabiraha bi maa laysat bi xaadiratin wala toxayib yow yàlla bul tas mukk yaakaari maam jaara ci yow baa ngi ci waasqinaa maaha min maa i kawsari man ixtartahu min jamil xalqi yow yàlla nag ñu ci déegub kawsar xam nga sallallahu alayhi wasallam ne dégg déggub kawsara kaas ya baree na ne biddiw yi ndox ma weexe na ne soow mi sedd na galaas ku ca naan dootoo feebar dootoo ñaq dootoo tafli dootoo ñandu dootoo am kawari poqtaan doo am kawari sikkim sa yaram day tax ba dang weex tàll fanweeri at ak ñett ngay am dootoo ko romb màggat bu dee jigéen dootul gis baaxub jigéen dootoo génnee sobe doo lekk ka naan ba soxla dem fenn tuur sobe sobe dootul génnati ci yow jigéen ñi ku ci naan it fi ñu toll nii danga nga yor taar boo xam ne muy gën a rafet weer bi dootoo def dara gis ngeen ca jaalibatul masiyaat wa daafiatul raziyaat gis ngeen Sëñ tubaab ba mu misaal jigéen ñi àjjana xoorun ladallaahi aynun xoor ayn xoor mooy jigéen joo xam ni lay ñuul ci bët ba daa ñuul kukk bët ba day toll ne nenub baax mooy ayn ayn mooy bët bu rëy xoorun ladallaahi aynun laa yuqaaribu xaydun nee na du ñu gis baaxul jigéen wala dara du ñu tilim bay soxla sangu daa man naqiyaati dañuy seet fu ñu toll maa masahunna ladun zul arsi ansa shay'un min la wasmi yosin wala saati as di nga ba mu àgg ne woo ba jëtu nuuri tën moo kulla saati seen taar day dolli ko jamono yu nekk ah waaye nga ne ko luy jigéen ñooñu mu ne takk wallaahi ragal yàlla leen takk ay koppar ak or ak leen takk nga ne kon ñu bëgg ñu arrêté kii bi dem ci seen kii. Hmm. feeg dix minutes waa kay Cheikh Modou Bachir bu ne waxat uutiyal sabiyan sha'na llaahi ma anbiyaa il maxsuumina wa awliyaa il maxfuusina siyama waxat rasaqat allazi ma zaala ala fitra aqaid allati ardaatu tilkal baratu saalihatu umuhu jaaratullaahi maryam iyaha ma alibaani wa alayha nasaa nee na Cheikh dañ koo teel a jox ay xikam sagesse ni ko suñ borom daan joxe yonent yi nga xam ne aar na leen ak wàllu yom ya wattu mu ne nag rawatina way juróom wu jigéen wu nga xam ne ba mu koy nàmpal la ko nàmpalaale melokaan yu sell yu màgg yooyu loolu sax ci ay sidditam wax naa la ci ginnaaw ni Cheikh Amadou Bachir nee na maam jaaram moo leen daan wax ne bokk na ci aada yi gaa ñu baax ñu di taxaw guddi te booba àggagul ci tamise xàmmee jëf te loolu lépp kat nee nañ la booba sëriñ bi demagul daara waaye weneen way juru ci des di sëriñ Momar Anta Sali loolu yépp xam naa duñ ci mën a àgg ca kanam ni ko Cheikh doon Diop daga indi ci ndam sutul ëndum sutul mu baarak